asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jàmm ci Sen Sport 221 Pape Matar Sarr l'international sénégalais moom nag mën na delluwaat Tottenham de buy saison bi jeexee Tottenham gi nga xam ne jëndoon nañu ko waaye abaloon ko FC Metz waaye nag kii xibaar baa ngi biral ne amaan na du fa toog mën nañ ko ablewaat ci beneen club gannaaw boo xamee ne kat ni ki daaw la ko Tottenham jëndoon waaye abal ko Metz googu nga xam ne ñoo leen ko jaay ni njëggu toll ci 20 millions d'euros ñaar fukki millions ci la defoon ci transfert boobu kay di xibaar bi biral na ne jamono bii Metz gi nga xam ne ñu ngi xeex ngir des ci Ligue 1 bi mën nañu wàcc mën nañu des ci Ligue 1 mais Pape Matar Sarr moom day dem ndax Tottenham jënd nañu ko ba noppi kay di xibaar bi li ma biral mooy ki nga xamante ne mooy Antonio Conte amaan du tee ki nga xamante Brighton Brighton def ak kii di Abdallah Sima xam nga Abdallah Sima Brighton dañu koy jënd ba noppi dal di koy abal Stoke City ci championship bu Angleterre voilà kon moom bu saison bi jeexee day dellusiwaat ci club boobu di Brighton nekk ci English Premier League bi xëy na nu ni mel la naam di xalaat seen diggante kii di Pape Matar Sarr donte ne ba fii ñuy waxee amagul dara loo xam ne dinaw ni na ci mbir boobu foog ñu xaar ba saison bi jeex ba ñu dem ci li nga xamante ne mooy pré saison yi pré mooy match yooyu nga xam ne dégg nga euh, club yi danañ koy amal mooy match de préparation yi avant saison bi di ubbi ci la ñuy xool taxawaayu joueurs yi dégg nga euh, wàccaay yi voilà ci la ñuy xam ne ana ñen ñooy dem ak ñen ñuy toog xëñ na bu fekkente ne loolu am na bu dee Pape Matar kii di Antonio Conte gis na ci moom dégg nga lu war a tax mu téye ko dana ko fa téye waaye daal leneen nit mën na am mooy ñu able ko ci beneen club bu fekkente ne dégg nga kii di Pape Matar Sarr kii di Antonio Conte amul plan ngir téye ko foofu en tout cas li kii di ko foofu am na skills am na physique na te it nga na xeex te Angleterre yooyu moo fay tax a am dara voilà moom nekkul koo xam ne dafa nooy kon bu fekkente ne kii di Antonio da jox na ko chance mën na ko téye voilà. gannaaw loolu nag dañuy wax ci keneen koo xamante ni moom itam euh, beneen xale la muy Cheikh Ahmadou Bamba Dieng 22 ans nekk foofu la ci Olympique de Marseille nga xamante ni kii di xibaar yi doon nañu xam le ni. moom kat day dem wala boog mën na dem ndax club bu mel ni Newcastle United ca Angleterre bëggoon nañu ko te ñii di Olympique de Marseille kat ñoom faw ñu jaay ay joueurs ndax jamono bi dañoo soxla xaalis ci Amath Bamba Dieng jàppoon nañu ne bokk na ci joueurs yi nga xam ne sax xëy na dinañ ko jaay waaye bu ñu ko ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci cérémonie bi nga xam ne moom lañ doon amal ni kiy barki dem rek te doon jox raaya joueurs yi nga xamante ne ñoo defi jaloore ci saison bi te moom nga xam ne moom la ñu jox ne moom la ñu tuddee ne mooy ci dugal bi bi gën a rëy ci saison bi moom Cheikh Ahmadou Bamba Dieng boobu ci cérémonie boobulee bi ñu ko laajee ci avenir am ci la dal di xam ne ne saison prochain fii laa des ci olympique de Marseille moom loolu la wax voilà kon moom nag ne na saison prochain mu ngi euh, dina dina nekk foofu nga xam ne mooy olympique de Marseille loolu rek la kayiti xibaar yi mën a jàpp ci ne kon Bamba Dieng amaan na moom ëllëgam leer na ci ne moom du dem ren waaye day des foofu ci club boobu di olympique de kon ni ngeen ko xamee club bu mel ni Olympique euh, Newcastle ko doon bëgg dese na contrat ba 2024 amaana dafa bëgg a duraat beneen at ci club boobu voilà soog dem waaye daal ak lu mën a xew moom bëri na ñoo xam ne bëgg nañu ko moom kii di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng jamono yi nekk foofu ca Olympique de Marseille ki nga xamante ni mooy Idrissa Gana Gueye bi nga xam ne jamono yi coow da koo nga xam ne fan yëpp kayiti xibaar yaa ngi ci mbiram tey ji nag moom gis nañu ay dégg ay euh, internationaux euh, ak président ci jëm boppam muy président wu euh, réew mi muy Macky Sall daal di posté dégg nga maam euh, ci dégg nga Instagram am di daal di soutenir ki nga xamante ne mooy Idrissa Gana Gueye voilà kon président de la République xamante ne mooy Idrissa Gana Gueye bi nga xam ne jamono bi mu ngi dund jafe-jafe ak euh, kat yi nga xam ne ñoo nekk foofu la ca bi voilà ki nga xamante ni itam mooy Cheikhou Kouyaté bi nga xamante ni moom itam euh, xaritu Gana Gueye la yàgg ak moom ca équipe nationale olympique ba ci équipe nationale A moom itam daal dinay def li nga xamante ni mooy moom itam ngi jàppale ki nga xamante ni mooy Gana Gueye di ànd ak moom ci loolu nga xamante ni mu ngi koy dund ci jamono bi keneen koo xamante ni moom itam def na ko mooy kii di Keita Baldé voilà moom itam nekk beneen moom itam mu ngi ci gannaaw Gana Gueye di ko li nga xamante ni moom la nekk ñëpp a ngi gis ak ñi nga xamante ni gisu leen voilà dem na sax ba ci ñi nga xamante ay woykat lañ Diagne ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk yaa ngi bind ci sa page dal jàppale ki nga xamante ne mooy Gana Gueye ci li nga xamante ne mooy koy dund ci jamono yi lii nag naagis na trop buñ demee nag ba nga xam ne ministre des sports muy Matar Ba ak président bi nga xamante ne mooy jiite réew mi voilà ak ki nga xamante ne mooy capitaine bi wala ancien capitaine des Lions muy kii di Cheikhou Kouyaté ak yeneen ñi nga xamante ay borom yi ndomba tànk lañ dal di génn fësal seen bopp lii dafay nekk loo xam ne lu am solo lay doon su ko defee rek dina tax ëllëg keneen koo xamante ne bay bëgg nañ laa teg yeneen eh, dégg nga yu ni mel voilà di nga am doole taxaw carrément dëggal sa bopp ndax di nga xam ne sénégalais yi duñ la bàyyi voilà duñu la seetaan ci xeex boobu nga ci wét voilà lii moom nice na trop gannaaw loolu dinañ wax tuuti ci transfert voilà balaa loolu ñu jëw ci kii di sax Koulibaly bi nga xam ne moom dañu ko tànn ngir mu nekk li nga xamante ne mooy joueur bi gën a xereñ ci mois d' avril bii ñu weesu ak club boobu di Napoli voilà Kalidou Koulibaly mooy dégg nga joueur mois d' avril ca club boobu di dégg nga Napoli ki nga xamante ni nag dégg nga moom mooy Kylian Mbappé kay di xibaar dañoo biral ni gannaaw boo xamante ni kat ñii di Paris Saint-Germain daanaka mën nañu wax ne mu ngi leen di rëcc am nañu beneen offre boo xam tegal nañ ko ko ci table ji voilà maanaam ay salaire yu duun daal la ñu ko tegal ci table ji ba fekkante ne nangu naa des foofu kay di xibaar biral nañu lu ëpp benn million par semaine nee ko boo toogee dinañ la ko fay voilà lu ëpp benn million ci xaalisu dégg nga muy euh, dégg nga euh, ko waxee pound wala ci ci euh, muy xaalisu Angleterre nga xam ne loolu suñ koy xayma daanaka dina dem ay booru quinze millions de wala benn million ak genn wàll benn million ak genn wàll ci euro comme ni ko kay di xibaaru biralee loolu la ko dégg ne daal bu fekkente ne nangu naa signé beneen contrat semaine bu jot dana ko danañ ko fay lu ni mel foofu la ca club boobu di euh, ñii di dégg Paris Saint-Germain waaye ñu kay na ko ci jamono xibaar yi voilà ndax nag day dem fa ñuy doon séntu ne fa lay dem wala day des dinañ ci xam le ak lu mën a xew daal kay xibaar bi ñu ngi biral ne Paris Saint-Germain ba fii ñuy waxee ñoom tegguñu seen tànk seen i effort ba fexe ngir kii di Mbappé war des ci club boobule. Ricardo Kaka bi nga xamante ni moom xam ngeen ne moom mos na fi gagné sax Ballon d'Or ci atum 2007 nekkoon foofu la ci AC Milan gagné Ligue des Champions dafi jaloore nekkoon ci club bu mel nii dégg Real Madrid nekk international brésilien moom nag gannaaw bi nga xamante ne bàyyi na football am na li nga xamante ne dégg nga mooy diplôme am voilà wala boog lissance bi nga xam ne moom la moo koy dégg nga def ngir mu mën a nekk entraîneur jamono bi ab coach la moom kii di Ricardo Kaka comme ni ko dégg nga ñoom Mourinho nekk ak keneen ak keneen jamono bii ñuy waxee ak yéen Ricardo Kaka am na ndigal ngir war a mën a coach ab équipe donte ne xale la ndax bi ñu bàyyi bi mu bàyyee football ak léegi yàggul waaye jot na li nga xamante ne mooy licence boobu nga xam ne moo koy may doole ngir mu war a mën a nekk ab coach bu ñu sukkandekoo ci kayiti yi José Mourinho José Mourinho kayiti xibaar yi ñu biral leen Newcastle United kat boo xamante ni pare nañu dugg ci marché bi xëpp xaalis ngir jot ci joueurs yu baax yi kii di José Mourinho la ñu bëgg ñoom waa Newcastle United José Mourinho la ñu bëgg jëlee foofu la ci AS Roma dal di koy delloo si ca Angleterre Mourinho bi nga xam ne moom mën nañu wax ne daanaka club yi gën a mag ci Europe bëri na yoo xam ne jaar na fa gagné fa ay trophée gagné na dégg nga moom Ligue des Champions na li nga xamante mooy English Premier League gagné na dégg ay trophée yu bëree bëri moom kii di Mourinho ak club yi mu jot a jaar club i club jamono bi daal ñoom ñoo ñoom ñoom la ñu bëgg moom la ñu bëgg indi bokk ngir indi ko foofu la ci Angleterre ngir mu war a mën a jiite seen équipe boobu nga xam ne moom la ñu baxeel tabax ngir janook équipe yi mag foofu la ca Angleterre. Barcelone nag gannaaw bi nga xam ne ñu ngi topp kii di Robert Lewandowski kii di xibaar biral nañu ne kat pare nañoo dugal kii di Memphis Depay ci deal bi bu ko jaree ndax kat 30 millions d'euros la ñu tegoon ngir Lewandowski pare nañu yokkaat xaalis yóbbu ko ba 35 millions d'euros waaye nee nañu bu fekkee mbir mi day continuer de dëgër sax jaral na leen dugal ci kii di Memphis Depay ngir indi kii di Lewandowski kon Barça ñu ngi def effort ngir war a mën a jot ci Lewandowski bile bi nga xam ne jamono yi ñii di waa Bayern na dañoo bañ ne duñu ko bàyyi waaye lu yàgg-yàgg dinañu ko bàyyi ndax Lewandowski daa bëgg a dem kon Barça pare nañu ngir def lépp loo xam ne jaral na leen ko ba indi ko foofule ca nga maam Espagne ki xamante ne mooy Paul Pogba kat moom ne ñii di Juventus ñii mën nañu wax ne jege nañu lool ngir amaat ko moom nag mën na wax ne daanaka dellu ñaari yoon yi mu dem foofu la ci Juventus yëpp xëy na free transfer lay doon Manchester United mooy club bi nga xamante ni moo gën a perte ci Pogba. ndax kan ñoom gannaaw boo xamante ni ci atum 2012 ñoo ko libéré woon ñii di Juventus dal di koy jël te fayuñ ci benn dërëm Juventus defar ba mu baax. Manchester United ñëw jënd fay ci lu toll ci quatre-vingt-quinze millions de livres maanaam lu ëpp cent millions d'euros ngir jënd Paul Pogba léegi mu ngi nii contrat bi jeex na tàkk day takkaar ay bagaasam dem fu ko neex te Juventus mën nañu ko amaat te duñ ci fay benn dërëm te jamono yi kayiti xibaar yi ñu ngi biral ne jege na lool ngir nekkaat seen joueur bu ñu sukkas nga ko ci kayiti xibaar yi voilà yi looloo fi gën a fes ci kayiti xibaar si konte leen di suivre seen sport 221 the best